élèves yi moom li ma leen di wax mooy mu mhm. nuy bëggee seen aajo di faju mhm. nu ñuy jël juróom-ñaari tàndarm di ci tudd sallallahu ala muhammad c'est tàndarma sallallahu ala muhammad ñaar mhm. doon bu waxee lekk benn nit amul lu mu warul ci juróom-ñaari juróom-ñaar loo fay wër fa la nekk bu dee ndam nga bëgg weesu woo ci kaw suuf ci juróom-ñaari juróom-ñaar suuf juróom-ñaar asamaan juróom-ñaar sallallahu ala muhammad juróom-ñaar yo nga tëfli ko ci tànn ba bis bu ne nekk benn mbegam yaa ngi koy dikki di def mhm. biir buy metti du la jaaxal mbët mhm. yu lëndëm du la jaaxal mhm. loo jàng danga ko xam yàlla dana la suturaal lépp duma ko sañ wax ndax dama am candidat ci ci ci ci ci élèves yi am ci soppe yu dul jeex na rawatina ci université Cheikh Anta Diop mhm. bare ci torop ba ca Gaston Berger waaw ba ci Bambey gi barkalla moo tax daal mhm. may ñaanal nag mhm. nuy def loolu baax na torop góor mën na ko def jigéen mën na ko def mag mën na ko def ndaw mën na ko def baax na torop